alors euh, bés bi nag li waral moy xam nga mbotay xet gi depuis 2019, dafa jël euh, bëss bi tay mu ko lu euh, journée mondiale de l'air pur pour un ciel bleu Manam bëss bo xamantene dal. euh suñu jaww ji dafa dafa wara nek nekk ju parce que jaww ji bu selé mën nañu am yaakaar ne sunu asamaan dina nek asamaan so xamantene ne su aussi. te bu nu na jaww ji suñu xel day dem ci air bi nga xamante ne ñu ngi koy nokki xam nga doomu adama mënul dund te te noyiwul kon bés bi bés bu am solo la bës boo xamante ne la day permettre ñuy communiquer maanaam di joxe ay xibaar ci li nga xamante ne gouvernement du Sénégal mu ngi koy def ci wàllu amélioration qualité de l'air mais li nga xamante ne aussi mbootaayu xeet bi mu ngi koy def ci àddina si yëpp ngir améliorer suñu environnement parce que boo xoolee tey euh, suñu alam bi sonn na. jafé jafé yi bari nañu yéen ngi dégg ñuy wax pollution de l'air yéen ngi dégg changement climatique yéen ngi dégg destruction de la couche d'ozone té loolu yëpp li indi du dara lu moy ni nga xamantene ñun non lañuy doxalé suñu dundin donc bëss bi tay dafa doon bëss bo xamantene dinañu permettre ñu informer ñu sensibiliser waaye ñu junj askan bi ak population bi ci comportement yi nga xam ne war nañ ko mën a am ngir sàmm seen alam voilà donc capteur bi boo gisee li tax ñu def ko loolu la parce que dañoo bëgg a am fii ci am fi benn infrastructure bo xamné daf ñuy permettre ñuy am les données de référence sur la qualité de l'air bo xolé Sénégal am nañu centre de gestion de la qualité de l'air nga xamantene ne bëriwul réew Afrique yi nga xamantene am nañ ko centre bobu nonu am na réseau bo xamantene ne installé nañ ko ci biir Dakar pour euh, pour de mesurer qualité de l'air bi mais Euh, réseau boobu chair na cher boo xamante ne fi mu nekk ñu ngi dem tey ci yeneen technologie yoo xamante ne moo gën a soft moo gën a yomb aussi ci entretien moo tax ñu tàmbali tey fii ci Diamniadio installé fi capteur bii nga xamante ne mu ngi ci sama ginnaaw tey du rek fii lay yem parce que programme bi dañ ko lëkkale ak les JOJ maanaam le journées mondiales euh, journée olympique de la jeunesse bi nga xamante ne day am fii ci Sénégal en deux mille vingt six pour que fep fi nga xamantene ay activités sportives dañ fa wara am dans le cadre de cet événement ñu mën fa def ay capteurs yo xamantene ne dina permettre ñuy xam qualité de l'air bi pour permettre athlètes yi athlètes yi seen activités ñu mën ko doxal dans les meilleures conditions. effectivement parce que Diamniadio bërëbu kay la waye aussi bërëbu kay la donc lolu ñu fiy def dañ koy def pour ñi nga xamantene ñu fiy liggéey waye aussi ñi nga xamantene ñu fiy dëkk.